hal yuzhibanna ndax loolu dana yóbbu pexem moom yi maa yaxiisu la ko merloo wa kazalika nii nag anzalnaahu lañ ko wàcce aayaatin muy ay aaya bayinaatin yu leer wa anna allaha te yàlla yahdi mooy jubal mooy yuridu képp ko neex tabarkalla ba ñuy jàng alquran joxe nañ ma daara ma jàng ba agsi fii suñu wu góor door naa seet si tabarkalla di Serigne Mbaye Sall nekk fii ci gaarasu pompier yàlla na yàlla guddal fanam ngeen baal ma ci misaal moomu damaa fàttali lu bari inna lazina ñi nga xam ne amanoo gëm nañ wallazina ak ñi nga xam ne wa kasalika anzalnaahu nii la ñu wàccee ayaatin muy ay aaya bayinaatin yu leer wa anna allaha te yàlla yahdi mooy jubal man yuridu ku bëgg jub yàlla mooy jubal man yuridu ku bëgg jub képp koo xam ne kii teg nga ci yoonu njub góorgóorlu topp programme suñu borom mu jubal la inna lazina ñi nga xam ne amanu gëm na wala zina ak ñi nga xam ne haadu nekk nañu ay yahud ne dañoo askanoo ci Muusa wa saabiina ak saabiuuna yi te ñooy ñi nga xam ne dañuy jaamu bidiw yi wan nasaara ak nasaraan yi te ñooy ñi nga xam ne dañuy askanoo ci millati Isa wal majuusa ak majuus yi te ñooy ñi nga xam ne dañuy jaamu sawara walladina ashraku ak ñii bokkaale te ñooy ñiy jàmm al awsaan xërëm yi ñu ñépp inna allaha yàlla yafsilu dana tàqale atte baynahum seen diggante yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba jox dëgg ña am dëgg ñu amul dëgg ñu xañ leen ko waaye téeméeri dëgg munta am inna allaha yàlla ala kulli shay'in shahid yàlla lépp la fekk inna allaha yàlla shahidun ala kulli shay lépp la fekk ku dul yàlla nag fekke woo lépp wareesu laa jéñ ne fekke nga lépp yàlla jàll jalaaluhu moo fekke lépp ku dul moom fekki lépp moo tax léeg-léeg muy am mbir yoo xam ne dañ ciy bàyyi xel yàlla bi subhanahu wa yàlla dafa fekke lépp moo tax foo jaaxlee rek wooxal gaaw mu ngi fi fekk na lépp jàll jalaaluhu yàlla ne na xanaa xamoo ne yàlla yasjudu lahu ngi koy sujootal man fi samaawaati li ci asamaan lépp wa man ci suuf ñépp ñu ngi koy sujootal yow kay yaay ñàkk xam sujoot gi waaye lépp ngi koy sujootal fi almalaika fi aqtaari samaawaati wal ins waa jinn wa saairi almaxluqaat fi alaalami al ardiyi ñépp a nga koy sujootal wa jant bi it mi ngi koy sujootal wal xamaru weer wi it mi ngi koy sujootal wan nujumu bidiw yi it ñu ngi koy sujootal wal jibaalu doji it ñu ngi koy sujootal wa shajaru garab yi it ñu ngi koy sujootal wa dawaabu lii dukkat fas yeeg xar yeeg bëy yi ñépp ngi koy sujootal wa kathirum min annaasi ak ñu bari ci nit ñi seetet <laughs> wa kathirum min annaas ñu bari ci nit ñi waxul nit ñaa ngi koy sujootal waaye lee ñépp a nangu nit ñi ñoom kathirum min rek yasjudu lahu kathirum min sujoodu taa wa ibaada waaw waaye leneen lu dul nit rek léppay sujootal suñu borom tabaraka wa taala ibnu kasir mu ne wa xasha samsa wal qamara wa nujuma bi zikr li annaha qad ubidat min dunillah fa bayyana annaha tasjudu li xaaliqiha wa annaha marbubatun musaxara muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel xatum juróomi téeméer ak fanweer ak ñeent ibnu kasir mu ne li tax yàlla beral jant bi weer bi biddiw yi tudd leen moo di daa gis ñu leen di jaamu mu bëgg a leeral moom suñu borom subhanahu wa taala ne yooyu ngeen di jaamu ñoom ñu ngi si jootal seen borom subhanahu wa taala tey des leen a moom des leen a tàggat su ko defee ba amee xel bàyyi leen fi mu ne kon yii yëpp ñu ngi su jootal yàlla wa kasirun min annaas ak lu bari ci nit kon ñëpp su jootaluñ yàlla su jootu taa ak ibaada ci nit ñi waaye ñu bari ci ñoom daal ñu ngi koy su jootal wa kasirun ñu bari ñeneen ñi nag xaqa alayhi yey na ci moom al azabu mbugal ga ñooñu ñoom nangu ñoo si jootal yàlla su jootu ibada nangu ñoo si jootal yàlla su jootu taa moo tax suñu borom tabaraka wa taala wa kathirun xaqa alayhi al azab wa man yuhini llahu ku yàlla doyalal fa maa lahu dootu am min mukram mukrimin ku ko teral ku yàlla doyadal man ahaanahu llahu bilchaqaa'i wal kufr fala yaqdir ahad ala daf'i lhawan alay ku yàlla doyadal suufeel la kenn du la mën a yëkkateeti inna allaha yàlla yafalu mooy def maa yashaau lépp lu ko neex te mbëgg koo def moom suñu borom subhanahu wa taala su jot baa ngi noonu ci suratu alxajji comme ni man ko waxe woon ca suñu darsi yi la nga xam ne ñoo weesu woon yàlla tabaraka wa taala mu ne haazaani ñaar ñii xasmaani ay xuluwaale lañ co iqtasamu fi rabbihim ña ngay xëccoo di ñeddent ci seen borom tabaraka wa taala mujahid nee na humul muminuuna walkaafiruun falmuminuuna yuriduuna nasrata diinillah walkaafiruuna yuriduuna itfaa nuur nuurillah nee na mooy ñi gëm yàlla ak ñi weddi yàlla ñi gëm yàlla dañuy bëgg dimbali diine yàlla ji ñi weddi yàlla dañuy bëgg fay leeru suñu borom bi tabaraka wa taala moo tax xaasaani xasmaani ixtasamoo fi rabbi ni ñaari équipe di def tase ci terrain bi équipe bu nekk fas yéenee jël la nga xam ne mooy ndam la la di daw di wax ay balaka def yëf loolu nga xam ne moo dal ñaari équipe yooyu moo dal ñaari équipe yi àdduna yi damay wax saa su nekk ne ñu wàcc àdduna yëpp war nañoo xam ne dañoo nekk ci benn tournoi football te ku dem yemal xiyaamati yëpp bu defet suñu borom du dugal la sawar te it alyahudiya wal nasaraaniya wal majusiya wal islaamiya ñooñu ñoo nekk ci terrain bi di football fi mu nekk nii nag tabaarkàlla ñu ngi ci deuxième mi-temps li des ci mbir mi yàggatul lool te am na ñoo xam ne dugal nañ leen un 0 ñu ñu dugal leen 2-0 ci tournoi boobu tabaarkàlla hazaani qasmaani qtasamu fi rabbi kon ñi nga xam ne dañoo bëgg a dimbale diine yàlla yi seeni physique dafa war a bari lool tabaarkàlla ndax match bi daa yàgg ñi ngi xam ne dañoo bëgg fay leeru yàlla gi nag ñoom am nañu physique ñu ngi góorgóorlu ndax xam nañ ne marché bi dafa yàgg moo tax tabarkàlla duñ ci sonn duñ ci yokkat fa lazina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ xutti at yàlla mu ne dogal nañu leen ba noppi xutti at lahum dogal nañ leen ba noppi fiyaabun ay yére yu yem ci ñoom min naarin ci sawara yàlla nee na ñooñu moom woo na da da ñaawal na tayër ba ñawal na leen seeni yére ya nga xam ne moom la ñu war a sol biir sawara ba noppi ndax wóor na yàlla ne danañ fa dugg fa lazina kafaru qutti'at lahum thiyaabun min naar yàlla gis nga ba mu ne abu lahab danga dugg sawara sa yaslaa naaran daata lahab wa mraatuhu xamaalat alxatab tax na ba abu lahab ca la mu dee moo di waxul ashhadu an laa ilaha illallah ndax yàlla ba muy dund la ko yàlla ne da dem sawara bokk na ci dëggug alquran abu lahab bu ne woon laa ilaha illallah dana keryal alquran te it waaye mënut a fexe ba wax laa ilaha illallah ndax su waxoon laa ilaha illallah te yonent bi ne ku ne laa ilaha illallah dugg aljan moom su ko waxoon te yàlla ne ko sawara nga jëm kon mbir mi dee daan nekk mbir mu jaxasoo waaye ba ni mu dee kenn déggul ci kàddoom gi laa ilaha illallah kenn déggul ci kàddoom gi ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah ñii tamit ñu ngi nii dund suñu borom ne leen xutti at lahum thiyaabun min naar daggal na leen seeni yére xëy na tabarkalla na yére yay mel bu dee pantalon si misak moo xam bu dee xaftaan moo xam bu dee garambubb waaye daal dagg nañ ko ba noppi war leen ko solal bu ñu demee yowmal xiyaamati suñu borom tabaraka wa taala wax malaaka yi ñu solal leen ko bu ñu leen ko solalee ba noppi yu sab bu ñuy sotti nag min fawqi ruusihim ca seen bopp kaw bopp ya alxamimu ndox mu tàng ma ndox mu tàng jër lañuy jël di ko sotti ci kaw bopp yéefar yi nga xam ne dañ leen dugal sawara titit nee nañu bu ñu ko sottee ci bopp yi day daal di seeyal mbaq yeeg butit yooyu ñu jëlaat ko sottiwaat ca kawam mu nekk noonu hadis ba moo ne inna alxamima la yusabbu ala ruhusihim fa yanfusul jumjuma xata yaxlisa ila jawfihi fa yus fa yaslitu maa fi jawfihi xata yamruqa min qadamayhi wa huwa zahr summa yuaadu kama kaana hadis baa ngi noonu axrajahu tirmisi wa qaala xadisun xasanun saxiixun garibun tabarkalla noonu la koy waxee moom tirmisi yonent bi nee na ndox mu tàng moomu buñ ko sottee seen bopp yi day jàll bëtt kaangum bopp mi jàll dem ba ci biir ba jàll seeyal butit ya daal di jàll ba àgg ñu daal di ki na mu nekkoon ñu daal jëlaat ndox daal di sottiwaat ci bopp bi tabarkalla mu fa lazina ñi nga xam ne kafaru wedd nañ yàlla ñu ci suratul xajj aaya fanweer aaya ñaar fukk fa lazina ñi nga xam ne kafaru wedd nañ yàlla xutti at dogal nañu leen xutti at lahum dogal nañu leen siyaabun ay yére min naarin ca sawara yu bu daañu sotti ca seen min fawqi ruusihim ca seen kaw bopp ya ginnaaw bi ñu yére ba noppi alxamiimu ndox mu tàng ma te ndox mu tàng ma àdduna sii tàng na lool waaye ndox ma yee gën a tàng ndox mi dina tàng waaye dañ naan quatre-vingt-dix degré rek yu demee ne ko yooyu ndox male moom mënee su ko natt suñu degré yii moo tax yus xaru day ruyal des na ruyal bi ca ndox ma maa fi butunihim yépp lu nakk seen biir mbàq ya ruy butit ya ruy kërandoom ya ruy lépp lu nekk ci biir bi rek xol baag lépp ruy suñu borom tabaaraka wa taala yonent bi nee na su ma yuaadu kama kaana ñu defaat ko na meloon wal juloodu der ya it ruyaale ndeysaan bu leen sottee ndox mu tàng ma rek seen dori seen der yi di ne soyan daa di ruy moo tax wedd yàlla baaxut wala hum daañu amit maqaamiu ay bolde min xadidin bu joge ci weñ maqaamiu weñ wala aw yet min xadidin yet weñ woo xam ne yonent bi nee na law wudi at muqmaatun minha fi l ard fa jtamaa alayha thaqalaani ma aqalluuha wala axrajahu imam ahmad yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam muq ma ab bolde yooyu suñu indi woon benn bolde ci àdduna woon te ginne ne leen toxal leen ko maa aqalluhaa duñ ko mën a toxal xoolal loo xam ne bu ñu indi woon ñun ñëpp ci Dakar suñu lenge yeeg quatre plan yeeg pexe yeeg yëpp ñun waa Dakar yëpp ñu bëgg koo jëlee jëppal yóbbu ko yóbbu ko parcelle bu mu ko mën yàlla nee na waxuma leen yéen waaye al jinnu wal bu ñu leen boole woon ñoom ñëpp ñu bëgg a toxal benn bolde benn yetu malaaka duñ ko mën a toxal te yetu malaaka woowi la suñu borom tabaaraka taala di jox malaaka mu koy dóor ci boppi ñu ko weddi bu yemal xiyaame <laughs> te it nee na inna naara alxasan ma wax loolu inna naara tadribuhum bilhabiha fa tarfauhum xata ida kaanu fi alaaha duribu bilmaqaamici fa huwa fa hawuu fiiha sabiina xarifan tafsiru razi jukkim ñaar fukk ak ñaar xatum ñaar fukk ak ñaar nee na suñu nekkee biir sawara bu baxee ba bax dangay gis gaa yi tëb wuti kaw mel ni ñebbe yi ñuy baxal te ñebbe yi am ci oyof dangay gis ñebbe yi di tëb di génn cin li di jóg ci kaw ndax baxaay bi moo leen di yëkkati malaaka yi di leen teewlu ñoom nit ñi bu baxee ba ñu tëb ba ci kaw rek bolli daal di dal eh, asan nee na bu boldi bi dalee nag danañ suux ci biir duggaat lu mat juróom ñaar fukki at ak doxam la ñuy dugg ci biir suuf ci biir eh, sawaraw boo dee baxal duuse léeg-léeg da nga gis xob yi di tëb ndax di bax bu baxee ba tëb nag nga gis ne léegi day bëgg a tuuru da nga daal di jël kuddu gi bës xob yi xob yi delluwaat ci biir boo ko defee bax bax bi daal di dalaat noonu ñuy def noonu la yàlla yi def nit ñi muy dugal sawara yàlla nuñ ca la musal yàlla bu ko dégg sax kullama aradu saa bu ñu namee an yaxruju minha génn min xammin ci jàqara loole uidu fiha ñu delloo leen ci biir suñ naree génn rek ñu delloo leen saa bu ñu naree rek bool de dal képp ku ne pëccet bëgg a jóg rek tabarkàlla ñu dóor la bool ci bopp yàlla nuñ ca la musal na leen wasuuqu te mos leen azab alxariqi mbugulum lakk lakk ga lool tabarkàlla moo tax lépp lu ñu dajee taxa a mucc loola jar naa xëy inna laaha yàlla nag su ko defee yudxilu mu dugal allazina amanu ñi njigam yàlla wa amilu saalihaati tey def lu baax mu dugal leen jannatin ay aljanna tajri dana daw min taxtiha caroon aljanna ya al anhaaru dex ya yu xallaw na daañu leen takkal fiiha ci biir aljanna ya min asaawira ciy takkaay ñu takkal leen ay takkaayi lam min zahabin ci or wa lu'luha ak lu'lu ngir teral leen ko tabarkalla wa libaasuhum seeni yére fiha ci aljanna ja xariir mooy soie ku dugg aljanna xariir ngay sol waaye nag ala wa arfa mimma fi dunia bi moo dàq bi gën koo kawe gën koo rëy yonent bi nag nee na ku takk fii doo takk fële waaw ku takk fii doo takk fële soo ooroo fii doo ooru fële soo suwaawoo fii doo suwaawu fële nit ñi nag ñu ngi naan suwaa bii laag du bii ak bii gën a seer ak yonent bi mu tere bokk teg bii ak bii dafa yomb ak tur bi daal moom xam naa ne ñoo ko bokkale comme nag suñu ñoo ko bokkale daal dana matt ak du matt bañ ko jox sa loxo daal loola mooy li gën a wóor yéen niir yaa ngi fi ba sa yaa ngi fi rafet booy bëgg a dee tabarkàlla ak yeneen ni moom waaye fekk fii tabarkàlla bëgg ko daal bëgg koo sol tax lu ne nga wax ko alaa kulli xaal mu ngi noonu daal woo doo ñu jubal leen ila tayibi ci li teey min al qawli ci wax ñu jubal leen ila tayibi ci li teey min al qawli ci ay wax nga xam ne wax yu teey rek la ñuy wax laa laxuun wala kasb bu ñu xasee dugg aljanna lu too fa dégg laxu laxu mooy wax ju amul benn maanaa euh, kasb nag mooy wax ju dul dëgg aljanna moom yooyu dafa am tabarkalla ndax day yàq programme ba su boobaa ñu jubal leen ila siraatil xamiidi ci yoonu ku ñu sant ka moo di suñu borom tabaraka wa taala siraatal xamid siraatillaahi wa huwa aljannatu daarul muttaqin tabarakal yàlla loolu lay fay ñi nga xam ne gëm nañ ko innal lasina ñi nga xam ne nag ñoom kafaroo weddi nañ wa yasudduuna te ñuy gàllankoor fu ñu toll an sabilillaahi ci yoonu yàlla ku bëgg a dem ci yoonu yàlla ñu gàllankoor la wal masjidil xaraam gàllankoorit ku dem ci kaaba gi mu ne mooy ñi nga xam ne jahadoo bi ma jaa bihi muhammad wa yamnacuuna almuminin an ityaani almasjid alxaram li adaayi almanasik xurtubi mu ne xiina saddu rasulallahi an almasjid alxaram amal xudaybiya moom nunu la koy fiire ba demee tafsirul xurtubi jukki fukk ñaar mu ne ñooñu allazi kaaba gi nga xam ne jacalnaahu def nañ ko lil naasi ngir nit ñépp sawaaun moo ci yem képp al aakifu fiihi ka nekk dëkk fa ko wër wal baadi ak nga xam ne gan la jàkka daal di kaab ak yàlla wala jàkka fu mu mën a nekk da cay yem képp euh, jacalnaahu mansakan wa mutaabidan linnaas jamian sawaaun fiihi al muqimu al xaadir wallazi yatihi min xaariji l bilaad al aakifu fiihi mooy ki dëkk fa wal baadi mooy ko jege ca kaw ga ñëw fii wala feneen lu tax jàkk yi nga xam ne it tabarkàlla moo nekk ci fu mën a nekk doomu aadama yi ñoo ci bokk yam ci wàllu ak jaamu tabarkàlla léeg-léeg muy am ay ñol-ñol bul ci jàkk jeeg jógal suñu jàkk jeeg génn lëg dañ ko bëgg a tëjëg sa naafile yi bari na yàgg ñoom seen i nekk yooyu tabarkàlla yàlla nee na waman yuridu képp ku bëgg képp ku namm fiihi ci jàkk jii di almasjidul xaram bi ilxaadin ci ak jubadi jeng bàyyi fi diine bëgg fee def ak moy bisul mun ci tooñ yàlla mu ne ku def loolu nu six ñu masal ko min azabin alim ci mbugal mu métti képp ku ñëw foofee bëgg fa indi lu bokkut ak la yàlla tabaraka wa taala def ñu masal ko mbugal mu métti ibnu mas'ud mu ne law na rajulan law anna rajulan bi adan hamma bi an ya'mala sayi'atan inda al bayt azaqahu laahu azaban alima bu beneen waay jógoon ak fu mu mën a jóge buur bëgg a def lu ban foofee suñu borom tabaraka wa taala musal ko mbugal mujahid mu ne tudaafu sayiaatu fii kama tudaafu alxasanaat ba demee ci tafsiru alfaqr razi mu ne foofa boo fa demee defee lu baax ñu fulande ko waaye boo fa defee safaanit ñu fulande ko ndax ci barab bi mag yi la bokk wa ispatlikul ba nga xamee ne ba wa naa dalal nañu li ibrahima ci ibrahima makaanal bayti barabu néeg ba ibrahima dal ko sanc ko sancal fa doomam ismail sancal fa soxnaam hajara ibrahima daal fay dal an laa tushrik mu ne ko nga bañ a bokkaale bii ci man shay an dara yow ibrahim ndax royukaay ngay nekk ëllëg moo taxit ibnu kathir mu ne ibnuhu ala ismi waxdi maanaam maanaam tabaxal ibnihi ala ismi waxdi tabaxal jàkka ji ci sama tur man dong bu la bokkaale kenn ndax kaaba gi waruma ko bokk ak kenn al muxtasar jukkib ñaareel mu ne ko wa taxir seetalal bayti sama néeg bi sama néeg bi na set na laab ci ay xërëm na laab ci ay lii ñu fiy teg ay yàlla wa taxir baytiya sama néeg bi li taa'ifiina ngir koy tawaaf bu kenn tawaafati di fi fekk ay xërëm ak ay bant ku nekk nan léey sama yàlla wal qaa'imiina ak ñi fi taxaw di julli war rukkaci sujuud ak ñi ñu ñepp bi tawaafi wa salaati Qurtubi mu ne wal qaa'imuuna humul musalluun wa zakara taala min arkaani salaati azamaha wa huwa alqiyaamu wa rukuucu wa sujuudu noonu la ko alqurtubi firee ci jukki fukk ak ñaareel ba xatum fanweer ak juróom-ñaar ibrahima daal di setal kaaba ga daal di koy jubbantiwaat daal di koy tabaxaat mu toll tollin wu baax ak itam def ko defin bu jub dindi xiram ya fa nekkoon yépp jóg na fa lu yàgg moom ibrahima xiram dooru faa ñëwaat waaye cay jamonoom seetaloon na ko ba mu set wecc ba mu ko seetalee ba mu set wecc nag suñu borom na ko ah set na mu ne waawaaw mu ne kon nag wa azzin fi nnaasi wa azzin wooteel fi nnaasi ci nit ñi ci biir nit ñi bil xajj ci aj wooteel aj aca ibrahima daa di woote yàlla ne ko soo wootee yatuuka daañu la dikkal rijaalan rijaalan di aji dox wa ala kulli daamirin ak lépp loo xam ne lu ñuy war la mu mu mu mu woos baamir mooy lu woos mooy loo xam ne biir ba rëyut lu mel ni gëléem gu biir ba aju wala fas wu biir ba aju soo ko defee yatiina daañu la dikkal min kulli fajjin ci bépp gox amiqin bu sori lu mu sori sori sori daañu ñëw ibn abbas nee na lamma faraga ibrahimu min binaa'il bayt qila lahu azin fi nnaas bilxajj qaala yaa rab wa maa yabluqu sawti qaala azin wa alayya al iblaq fa saida ibrahim ala jabali abi qubays wa saax ya ayuha annaas inna allaha qad amarakum bi xajji haza al bayti li yusibakum bihi al janna wa yujirakum min azabi naar fa xajju fa ajaabahu man kaana fi aslaabi rijal wa raxaami nisaa labayk allahuma labayk tafsir faqru raasi jukki ñaar fukk ak ñett xatum ñaar fukk ak juróom-ñaar ibrahima nee na ba ah, ibnu abbas nee na ba ibrahima noppee ci tabax kaaba ga yàlla daf na ko wooteel mu ne ko man sama kàddu soriwut yàlla na ko wooteel maay jottali mu daal di yéeg ca jabalu abi xubays daal di woote yéen ñi kaa leen aj néeg bi yàlla fay leen tu defal leen tuyaaba te it muccal leen ci sawara mu daal di woote yàlla na ko soo wootee ya tiina daañu dikk min kulli fajjin ci bépp gox amiqin bu sori kon mbokk ñuy déglu ñoo ngi ci fanweereelu aaya ak juróom-ñaar ci suuratu alxajji di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu defal ñu tawfiq ba ñu dajawaat fii beneen yoon ci kàttanam. mbokki ñuy déglu asalaamaaleykum wa rahmatullah dellu si nañu ci kàttanu suñu borom tabaaraka wa taala di leen defal seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu bés bu sat ci waxtu wi ba ñu umee ba léegi. tabaarakallaahu ñoo ngi woon ci suratu alxaj. fi suñu borom tabaraka wa taala di sante suñu maam ibrahima alayhi salaam ngir mu tabax kaaba gi setal ko ci xiram li taifina wal qaimina war rukai sujud ba mu ko defee ba noppi suñu borom tabaraka wa taala sant ko nag ne ko wa azin fi nnaas bil xajji yatuuka rijaala wooteel nit ñi ñëw aj si fi nga xam ne moo di kaaba gi ibrahima daal di woote nee nañu loolu moo tax ku dem da ngay wax labayk allahuma labayk labayk la sharika laka labayk inna alhamda wa nicmata laka wal mulk mu di aaye ñaar fukk ak juróom-ñaar ci suratu alxajj ñu war a tàmbalee ci ñaar fukk ak juróom-ñett ci nafsu suura suñu borom tabaraka wa taala di waxee li yashhadu mi ngi nettali di ñu jàngal li nga xam ne moo di wàllu la na ca aj mu ne Ibrahima soo wootee yatiina min kulli fajjin amiq li yashhadu ngir ñu fekke li yashhadu ngir ñu seede manafia ay njariñ yu bari lahum ñe leen mu ne képp koo ca ne kii ñëw na fii dina fi am ay njariñ ndax njariñ yu bari la muy al ibaada diiniya wa dunyawiya amul feneen foo xam fi dafay am ci min al ibaadaat noonu la ko alfaqr raasi tafsire ca tafsiram ba jukkib ñaar fukk ak ñaar xatum ñaar fukk ak juróom-ñeent yàlla mu ne bu ñaaral ba wa yaskuru ñuy tudd ismallahi turu yàlla fii ayaamin ci ay fan maalumatin yu ñu xam maanaam foofu di jaamu yàlla googu bu ñu fa dee jaamu yàlla bu ñu fa amee seen njariñ yooyu ba noppi ñu daal fay bàkk suñu boroom tabaraka wa taala wa yazkuru ismallah ñu bàkk fa turu yàlla fi ayaami maalumatin ci ay fan yoo xam ne fan yi ñu xam la muy ayaamu naxari ñu def ko shukran lillahi ala niamihi tabarakallah ñu def ko ala ma razaqahum ci li leen yàlla war wërsëgal min bahimatil an'am ci bàyyi ma jur gi te moo di gëlëm nag xar ak bëy yooyu yëpp yàlla tabaaraka wa taala defal leen ko boo ko defee ñu wuute nag ni musrikoo doon def te mooy rey bàyyi ma yooyu waaye di ko rey ci ay nusub di ko rey ci ay al awsaan maanaam di ko rey ci ay tuur mbaa ñu koy rey ci ay xërëm yàlla mu ne yéen bu leen def loolu nangeen ngeen ko def ndax xar mii nga xam ne moom ngay rendi wala bëy wi ngay rendi mbaa nag wi mbaa gëléem gi yàlla nee na maa la ko tàggatal te ruux ruuxam gii mu yor ak sa ruux gi ëppante wuñu ruux yépp ñoo tolloo kon su ma la mayee nga tàggale ruux ak ki nga xam ne moom laa ko def ci moom waruloo ko defal leneen lu man waroo ko defal jinne waroo ko defal malaaka waroo ko defal ak garab gu naan garab gi daa wex waroo ko defal géej gu naan géej gi daa mer ala ma razaqakum min bahimatil an'am suñu borom tabaaraka wa taala nee na moom lañ ko war a defal ndax tàggale ruu ak lii dund dafa rëy moo tax doomu aadama lu mu tuuti tuuti boo ko rendee am musib am problème doomu aadama lu mu tuuti tuuti dof bi gën a dof ci dof yi boo ko fekkoon ci mbedd mi rendi koy daal di am problème naka noonu kon teraanga yàlla la tabaaraka ko taala wa laqad karram naa bani aadama moo tax boo tiimee bàyyi ma la jël sa paaka teg ci baat bi war koo ren di tàqale ko moom yàlla nee na bul ko def ci ay caaxaan bul ko def ci lu dul lu rëy lu tal nii suñu borom tabaraka wa taala moo tax boo ko tiimee da war a tudd turu yàlla subhanahu wa taala moo tax képp kuy tabaski it amat saxar indi ba ci rendikaay bi tër ko rendi ko ah war ngaa xam yow li nga rendi nangu yëpp nangu ndax yow nangoo nga noonu wala déet moo tax yàlla mu ne ngeen tudd yàlla wa yaskuru ismallahi ñu tudd yàlla bàkk ko ndax lu réy lim leen defal fii ayaamin ci fan yoo xam ne maalumaat fan yu ñu xam la fan yi leer na muy ayaamu naxal muy fani tabaski yi ala ma razaqahum ca la leen yàlla wërsëgale min bahimatil an'am ci jur gi nga xam ne ay bahima la te moo di mënuñoo wax tabarkalla kon nag mu ne ngeen rendi leen waaye ah, ngeen tudd ca tur yàlla subhanahu wa taala fa kuloo lekk leen min ha ca yàpp wa fa kuloo lekk leen min haa ca yàpp ya yàppi tabaskiya wa atimu na ngeen jox nag na ngeen lexal albaisa alfaqir albaisa alfaqir ki nga xam ne dafa am faqru akub jafeñal gu métti albaisa alfaqir ibnu abbas nee na albais allazi zaara busuhu fi mu ne koo xam ne kii boo ko xoolee yëre yi xool kanam gi xam ne kii am na jafeñ-jafeñ ibni abbas nee na kooku mooy albais nee na alfaqir mooy allazi la yakunu kadalik moom siyaabuhu naqiya wajuhu xani faqir moom mooy ko xam ki boo ko xoolee yëre yi muy sol set na kanam gi leer na waaye nag yoru dara tabarkalla ñoom ñaar ñépp yàlla subhanahu wa nee na kenn ku ci nekk nañ ko ci jox dama aadama yi nag léeg def noonu au ñu jox albaïs alfaqir dañuy jox alxani dañuy jox ko oomal di ko tuddee ay tànk njëkkeek ay fàllaray goroog ay faari nangam ak yooyu lañ koy tuddee tabarkàlla léegi-léeg ab yàq jóge fi dem fu sore sori waxuma la ab yàq sax waaye yàpp jóge fi romb ko ko soxla woo dem yóbbu ko leneen yàlla tabaraka wa taala moom li mu bëgg mooy albais al faqir daal moom la ñu koy jox moom nga koy jox te it loolu boo ko defee ni la ko sa borom santaane mooy gën nga defee ko ni la ko aada santaane ndax aada moomu la aada bindu la aada mayu lam xar suñu borom tabaaraka wa taala moo la bind moo la moom may lam xar bëgg nga defee ko nii tabarkal mu ne suma ginnaaw ga li yaqdu ñu tàggale tafasahum seeni tilim tilim ñu tàqale ko ak seeni tilim tilim maanaam ca ah, nga xam ne tilim ya laaloon na leen ca ba ñuy armal ñu dàqaloo ko seeni tilim kon sañ nañoo xalq sañ nañoo taqsir ndax dindee ko chaas bi ak wàññi naanu yeeg yooyu ak lelli bi su ma li yaqdu tafasahum wal yuufu nañu matale it nusuruhum seeni nisër lañu ñu ci topp ko yàlla subhanahu wa taala waral ko ci seen kaw mu ne loola it ñu daal di koy def kenn ku ne lam nisaroon ñu def ko wal yatawafu nañu nañu wër bil baytul atiq ci néeg bu yàgg boobu al baytul mu di néeg bi nga xam ne bu ko wër nag mu ne zaalika loolu mooy ndigal li zaalika loolu mooy mbir mi tabarkal wa man yuazim képp koo xam ne kii nag màggal nga wa man yuazim képp koo xam ne ki jox nga orma xurmaatillaahi xurumi yàlla yi képp ku maggal xurumi yàlla yi wa yajtanibu almaasi walmaxaarim xurmaatillaahi xurumi yàlla yi jàkka yi kaaba ga tabarkalla xurum lépp lu yàlla ormaal ñàkk ko mu ormaal ko fa huwa ku def loolu def googu xayrun lahu moo gën ci moom te aw yiw la inda rabbihi fa am na solo lool tabarkalla yàlla nee na wa uhillat lakum dagana lan ci yéen al anaamu jur gi jur gi dagan na ci yéen wa uhillat lakum daganal na ci yéen al anaamu jur gi illaa lu dut maa la nga xam ne yutla aleykum jàngaloon nañ leen ko ca saar wa ca kaw mu di almaida wala ca al yooyu rek lañu ñu araamal ci yéen leneen lu ko moy rek dafa dagan ci yéen ngeen lekk leen muy ci ci anam yi te yooye waxoon na ko muy almayta ak almunxanixa te mooy xal laxasu ba dee te kenn rendiwu ko ak lépp lu ñu rendi te suñu borom tabaraka wa taala taxut yàlla nee na yooyu yépp moom na ngeen ko moytu ndax yooyu dagan fajitani bu na ngeen moytu arrijsa lépp luy sobe lépp luy sobe yàlla tabaaraka wa taala nee na na ngeen ko moytu wa huwa gaayatul mubaalaga fi nahyi min iba an ibadatiha wa taasiba fajitani bu moytu leen arrijsa lépp luy sobe min al awthaani te bokk ci xirim bi wajitani bu moytu leen xawla zuur wax ju dul dëgg xawla zuur seede lu dul dëgg lépp lu dul dëgg bu leen ko nangoo seede mukk tabaarkalla su ngeen xasee dem Makka ba ñëw yàlla tabaaraka wa taala nee na na bokk ci seen i jikko ngeen mel nii soo demee Makka rey sa tabaski wër Kaaba ga wàññi sa kawar tabaarkalla nee na na nga daan tàmbali nag di ormaal urumi yàlla yi di ormaal urumi boo jógee Makka ba ñibbisi ah nee nag lépp lu yàlla di araamal buñ la ca gisati ndax alaaji diw daa def nangam yàlla nee na dafa rëy te tur wi nga jël dafa dafa mag lool boo xasee tudd ilimaan mbaa nga tudd sëriñ mbaa nga tudd jàngalekat mbaa nga tuddu alxaaji mbaa nga tudd aja suñu borom tabaaraka wa taala ne ah na nga daal di tàmbalee mel nii moo di xurumaatillaa yi na leen bàyyi xel bàyyi ma yi nga xam ne dagan nañoo lekk nee na moom yooyu day lekk lu dul nga xam ne dañ ko araamal bu ñu la gisati ci lekk lu araam ñaare ñetteel ba tani boo rijsa min al awsaan boo xasee jógee màkk ba ñëwati bu ñu la fekkati ci rijsa mukk min al awsaan ci ay jaamu xiram ak yu demee ni ko yooyu alaaji du seetaan sabar mu ne alaaji du dem ci am po alaaji du dem ci ay tànn béer ajaa du dem ci ay tànn béer suñu borom nee na boo xasee jóge màkka ba noppi ah fajitani bu ruj zaminal awsaan ba ci tege mooy wajitani bu xawla zuur boo xasee ñëw bul seedee ci lu dul dëgg bul bokkat ci lu dëgg bul bokkati ci lu leerut ndax léegi dafa am lu xew mooy dangaa toiletu ba noppi dangaa sangu ba set li ci des mooy malakal mawti jël si la nga ànd ak moom voyage ngeen dem albarsax te xamuloo kañ lay ñëw kon foo mën a nekk rek na nga fexe ba sa toilette boobu bu mu yàqu teyit it sa aj googi mooy sa ponk bi mujj ci ponk lislaam yi def nga ko léegi waaj nga ba noppi tabarkalla peñewu nga def nga sa yëpp takk nga sa walis li nga war a def mooy fexe nag ba suñu borom tabaraka wa taala bu yónnee al malak bu ñëwee fekk la ci li nga xam ne mooy li baax yàlla nee na su ko defee xunafaa lillah ngeen jëng bàyyi fi mboolem luy ay caaxaan daal di wommatu ci ki nga xam ne mooy suñu borom tabaraka wa taala gayra musrikiina bihi bañ koo bokkaale teg dara moom yàlla yow daal loolu dafa doy waar lool boo xasee jóg ma jóge mag yàlla nee na li tax ma lay tere bokkaale moo di wa yushrik billahi képp ko bokkaale yàlla fa ka annama ngi mel ni moom waa ji xarra dafa daanu min asamaai bàyyi koo ca kaw ba muy daanu bàyyi koo ca kaw fa taxtafu tayru picc yee fëkk ko maanaam bokkaalekat daal daa mel ni ku demoon màkk bay ñëw bi muy ñëw avion bi ñëw ba ci kaw ñu naa ah, essence bi kat nangam nangam ñu takkal gaa yépp ay paaraay ñuy wàcc yàlla nee na aji bokkaale ji moom mu ñëw ba tiim seen kër ay mbokkam yépp ne alaaji ñëw na alaaji ñëw na nee na ponkalum picc daal ñëw ne ko coppet yóbbu ko noonee mu jaar fa dem <laughs> nee na bokkaalekat noonu la mel aw wala boog mu ne beneen misaal te ko picc mi yóbbuwut tëx wii bi def ko walbati ar riixu ngelaw li ngelaw li daal ñuy ñuy gasandu benn ajaa wala benn alaaji yàlla nee na ku bokkaale ni mu mel mooy ngelaw la ñëw rek buub ko te di ko yóbbu ca fii makkanin sayiq ci barab bu sore sore sore boo xam ne ay mbokkam xamuñu fan la nekk su ko defee noona mën na caa doxe ba alko maanaam bokkaale daal yàlla da misaal euh, rëyaay bi ci nekk ak Eh, màggaay bi moo di nee ko bokkaale ñaar yi lay mel mel ni ku jóge ca kaw doon cëppeelu am picc mu rëy rëy rëy ne la fëkket daal la yóbbu wala nga jóge ci kaw doon cëppeelu ngelaw li jàddal la defee la yóbbu la feneen foo xam ne bokkut ak fi ñu la doon gàttandoo ñaar yooyu yëpp bu ci nekk gaañ gaañ xaj na ci ako sànku zalika yàlla mu ne mbir mi noonu la deme zalika mbir mi daal noonu rekk la demee mu ne leeral na ko ci ay atte wa man yuazim képp ko màggal sha'aira allahi barabi jaamikaay yàlla yi barab yi nga xam ne ci la ñuy jaamu yàlla mu di umuri diin amalul xajj ca la bokk al adaahi tabaskiya ca la bokk wala hadaya hadiya ca la bokk yàlla ne na ko bàyyi xel yooyu benn bu ci nekk nga koy def na ko suñu borom tabaraka wa taala santaane mu ne fa innaha yooyu min taqwa al qulub mi ngi bokk ci ragalu xol min taqwal qulub mi ngi bokk ci ragalu xol Qurtubi mu ne adaafa taqwa ila alqulub li anna xaqiqata taqwa fi lqalb wa fi lxadis ataqwa hauna wa ashara ila sadrihi sallallahu alayhi wa sallam Qurtubi daf ne yàlla dafa jël taqwa bootale ko alqulub nekk ca lu ñu idaaf mu ne ndax dëgg-dëgg ragal yàlla ci xol lay nekk ndax hadis ba nee na ataqwa hauna yonent bi alayhi salaam dafa toog di waxtaan ak saaba yi mu ne leen ragal yàlla fii lay nekk daal di jël baaraamu sànnikaay ba joxoñ ko ca dënn ba tafsirul qurtubi jukki fukk ak ñaar xatum juróom fukk ak juróom benn la la ñu jëlee wax jooju yàlla nee na lakum am ngeen fiiha manafi lakum am ngeen fiiha ci tabaski fiiha ci xar yi manafiu ay njëriñ ila ajalim musamma ba ci ab bu ñu ab ñu xam am ngeen ci ay njëriñ yu bari ci batt bi ngay rat ci doom yi muy am ci war giñ koy war ba waxtu wu laj wa jot mu ne thumma ginnaaw ga nag maxilluha barabam bañ ko war a rendee barab boobe al bayt ila al ma nga jëm ca néeg bu mm, yàgg ba mu di xurum bi makka aw muna tabarkàlla ñu tudde fii nag al bayt lu tax bi zikri li annahu ashraful xurum ka xawlihi taala hadiyan baaliqal kaaba loolu moo tax yàlla ne na wa li kulli ummatin xeet wu masaana ñëw kaw suuf jaal naa defaloon nañ ko mansakan ak jaamukaayu yàlla bépp xeet wu masa ñëw suuf jaal naa defaloon nañ ko mansakan barab boo xam ne bi ca lay jaamu yàlla subhaanahu wa taala mi ngi xibaar kon di wane ne bépp xeet bu fi masa ñëw yoonaloon nañ ko aw yoon woo xam ne ci doon jaar ibnu kasir noonu la ko fiire li yaskuru ngir ñu mën a bàkk ismallahi tur yàlla ala ma razaqahum ci li leen wër lim leen wërsëgal min bahimatil an'am ci bàyyi may jur ñoom tam ñu mën a bàkk yàlla lim leen wërsëgale ci bàyyi may jur mu di gëléem nag xar ak bëy tabaarkàlla suñu borom tabaaraka wa taala jox leen ko ñu koy war di rendi waaye nee na musirikoon yi ñoom dañ ko daan rendi di ko rendil xiram ya yàlla nee na fa ilaahukum seen yàlla ji xeet ya fi daan am ba xeet bu mujj wi ñoom ñépp seen yàlla ji ilaahun waahidun jenn yàlla dong la amul ñee am yàlla ñee am yàlla ñee am yàlla yàlla ji jenn la fa ilaahukum ilaahu waahid dafa fekk na na ko ñee di euh, présenté ak ni ko ñii di présenté mooy wuute waaye alquran ak téere yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala wàcce woon ñoom ñépp la ñuy wane mooy fa ilahukum ilahun wahid fa lahu te ci yàlla jooju aslimu na ngeen ommat mu ne na ngeen ommat yéen ñépp ngir yàlla jooju nga xam ne jenn yàlla rek la mu di suñu boroom subhanahu wa taala su ngeen ommatoo nag yàlla mu ne wa bashir na nga bégal al muxbitiina way topp yi al mutiiina al mutawaadiina al xaashiina na nga leen bégal wa bashir al muxbitiin muxbitoon yi nag boo demee ci madaariju saalikin libnul qayim aljawziya ba muy lim manasilul ubudiya di firi iyaaka naabudu wa iyaaka nastain te jële ko ci sëriñam ibnu taymiya rahmatullahi alayhi dafa caa wax ne benn tolluwaay la boo xam ne nit ki ciy toll moo di ko xam ne kii ci ak jaamu yàllaam yëg na ne li muy bokk ak nit ñi di jaamu yàlla dafa war a am leneen loo xam ne day beru di ca jaamu suñu borom tabaraka wa taala ba demee ci téeram boobu ñu tuddee madaarij saalikiin tabarakàlla indi nañu ko te ñu tahzib ko léegi ba mu mel noonu mu mel yàlla mu ne ñooñu allazina ñooñu nga xam ne isa zukira allahu bu ñu tuddee yàlla wajilat day tiit xuloobuum seen xol isa zukira allahu bu bu ñu tuddee yàlla wajilat day tiit xuloobuum seen xol yi ala ma asaabahum ci lépp lu leen dal ñu tam ci lañ bokk bokk nañ ci muxbituuna yi wal muqiimi alsalaati way taxawal julli yi ñu tam mbokk nañ ci wa mimma razaqnaahum yunfiquun te li ñu ak itam ñi nga xam ne lu leen yàlla jox ñu joxe ca wa mimma razaqnaahum yunfiquun ak itam lu leen yàlla jox ñu joxe ca wal budna nee na wal budna giléem gu duuf nag màgg rëy wala bud na jaalnaaha def nañ ko lakum ngir yéen min shaairillaahi mu bokk ci xeeti jaamukaayu yàlla yi lakum am ngeen fiiha wala boog jaal naa min shaairillaahi lakum defal nañ leen fiiha ci moom xayr aw wal bud na giléem gu ndaw jaal lakum ñeel leen min shaairillaahi ci li yàlla sharia tëral li yàlla tëral ci sharia lakum ngir yéen fiiha am ngeen ca xayrun aw yiw ibnu kasir mu ne wa kawnuha min shaairi diin annaha tuhda ila baytihi alxaram bal hi afdalu ma yuhda almuxtasar jukkim ñaareel ba katum juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom mu ne loolu noonu la ko firi lakum fiha xayr mu ne nafun fi dunia wa ajrun fi l axira ci am njariñ ci àdduna te mooy lekk ci yàpp yi da ngeen am fay ci alaxira tabarkàlla te mooy yàlla dugal la ci aljan yàlla mu ne faskuru na ngeen tudd ismallahi turu yàlla alayha ci li ngeen di ren sawaafa ñu taxaw nekk lu sappe bi ngeen leen rendeegul ci tànk ya tolloo yépp ñu tolloo ngeen tudd yàlla xam ne xel lii moos ni mu bare sawaaf bari lool nga gis bu tabaski jotee ni xar yi di bare boo demee ca daral ga da ngay defee ne nii buñ ko rendee xar duutu fi am bu déwee ne nga ñëw fekk loo xam ne jàpp nga ne lii moom moo ëpp la fi weesu woon daaw boo laajee yarkati xar yeeg ñuy toppatoo wàllu gërëm ni ko noonu at mu jot dañuy wax nangami junni la ñu rendi sawaaf parce que rusma laayi alayha sawaaf nga gis ne xaaj mi nga xam ne juróom-ñaari doom lay jur fu ñu ne bu ñu ne woon dañuy tabaskee xaj kenn ñu bari du ñu tabaski ndax xaj yi tollu ñu noonu ndax ñàkk a barkeel gu ñàkk a barkeel muus yi it noonu waaye lii di xar tabarkal la at mu jot li ñu leen bu déwén saa mu ëpp fa ndax ñii tabaski dañuy gën di yokk tabarkal la sawaafa suñu borom noonu la mel du programme yi mukk lu ñuy dem ba mu yàgg ñu naan ah yàlla li mu programme daa manqué léegi déedéet loolu doomu aadama moo koy def waaye yàlla subhanahu wa taala du ko def mukk tabarkal fa isaa wajabat junubuha bu tëralee wetam nga mu ne bàyyi mayi bu ñu tëralee seen wet yi fakkuloo maanaam bu ngeen ko rendee su boobaa fakkuloo lekk leen min haa ca jur ga min haa ca yàpp wa wa atimu ngeen may ca alqaania wal mu'tar ñoom ñëpp ngeen may leen ci alqaania arrazi mu ne al aqrabu an al qaania huwa raadi bi ma yadfa ilayhi min xayri sualin wa ilha mu ne al qaania daal moom faqar razi mu ne firi bi ko gën a jege te dëppoo ca moo di mooy koo xam ne lu ñu ko jox loola doy na ko du du yelwaani tey du sañu kenn ci bul ma fàtte ci xar mi mu ne wal mu'tar mooy koo xam ne kii moom yataarradu moom day ñëw naan ah nu ngeen def tabaski ngeenam man de kër ga dara nekku fa wa ya'tarihim xaalan baada xaalin léeg-léeg rek mu seet si gaa yi naka noonu boo ñëwee ci kon alqaania wal mu'tar tabarkàlla ibnu abbas ni mu ko firee moom it mu ne alqaani ay almutaafif wal mu'tar ay asaail loolu la ibnu abbas wax moom it ko defee ci qataada ak naqai ak mujahid ak ñu bari ci salaf yi noonu la ñu ko fire te mooy ki fegu bañ a laaj ak kii laaj mu nekk nii bu asakay muurum koor di bëgg a jot da ngay daal di gis alqaami ak almu'tar benn nit day ñëw ne la sëriñ bi bul ma fàtte ci muuri koor yi nga gis koo xam ne ki moom yoonam nekkul ci mu naan ma fàtte ci muuri yi yàlla nee na bàyyi leen xel ñaar ñëpp rek bàyyi leen xel ñaar ñëpp rek tabarkalla yàlla mu ne kazalika naka nii nii ngeen di leen dee xar yi saxarnaaha lañ ko tàggatale lakum ñeel leen laallakum xëy na tashkuruuna ngeen sant yàlla mosal ci qaani mosal ci mu'tar bu ko defee kenn ku nekk daal di ciy am ci ñoom ñaar ñun ñëpp te ngeen xam ne nag lan yanaala allaaha du àgg ca yàlla lan yanaala laaha du àgg ca yàlla luhumuha yàpp wi du ne tabaski mi yàpp wi yàlla jël tiim ko moom malaaka di lakk di lekk lan yanaala allaaha luhumuha yàpp wi du mooy lay àgg ca yàlla wala dimaa'uha deret jayit du caagi ne mooy lay àgg ci yàlla walakin waaye yanaaluhu taqwa minkum ragal yàlla ga rek mooy li nga xam ne mooy lay àgg ci suñu borom subhanahu wa taala suñu borom tabaraka wa taala ci suratul xajji aaya fanweer ak juróom benn jëm si fanweer ak juróom ñaar yàlla nee na lan yanaal allah du àgg ca yàlla luhumuha yàppi tabaski wax naa ne du caagi ne yàlla yàpp walay tiim woo malaaka yi ne leen kaay leen diw moo ñu yokkal yekk bi déedéet wala dimaawha deret ja it du mooy àgg ca yàlla mu naan malaaka yi kaay leen ñu togg lii déedéet walakin waaye yanaaluhu lay àgg ca yàlla attaqwa mooy ragal yàlla gi minkum gi jóge ci yéen moo tax reyum tabaski am taqwa baax na waaye tuutim tabaski te am taqwa baax na waaye lu tabaski rëy rëy bu ci taqwa amul amul solo bu tuutee te am taqwa moo tane moo gën sax lay wax ak itam tabaski kon su boobaa taqwa minkum bi ci yéen nit léeg-léeg mu am ñaari soxna yéet kële xar yéet kële xar toog ci diggante ba su boobaa léegi moom walakin yanaaluhu taqwa minkum ja da koy daal di teggi kazalika nii yàlla tàggatalee kon jur gi mu ne saxaraha lakum la leen ko tàggatalee tabarkal ngeen war ko rendi waaye am ak taqwa bi ngeen koy rendi suñu borom tabaraka wa taala tax waa nag moo di bàyyil yàlla yi tere tey jëfe lim santaane moo tax bi ngay rendi xar mi dafa am lu xar mi nangu mooy dafa nangul suñu borom tabaraka wa taala nga dem fan koy jaayee ne xar mi ñaata ñu ne nangam xar mi nangu ñu koy jënd ak jaay nga jël ak buum yeew ci baat bi xar mi nangu koo ko yeew ndax yàllaa ne ko nangul ñu yeewal nga fab daal di fodon ko daal di dugal ci sa maalo oto ni maal bi xate booy dem doo ci dugal sa doom doo ci dugal sa sët doo ci dugal sa frère nga ne ci xar mi dell ci ginnaaw maal bi daal di taal gaz gaz gasoil bi lépp ak secours yeeg yëpp ngay kër kërën ngee indi ci kër gi mu tax ripp nga ne xale yi xale yi sàng leen xar mi nangu rek nga daal di yeew di jox ay ngooñ ak ay mburóog lu kenn xamut yooyu miinu ko woon xamu ko woon waaye nag mu nangu rek ndax suñu borom tabaraka wa taala mi ne ko nanga nangu danaa la fay aljanna nga daal di xëy benn bis rek daal di fab jël jël buum ji daal di ommat indi sol sa mbubb yi rafet say soxna jëndi soble jënd ay pombiteer lu nañu dugg ca daal seeni paaka yooyu jënd ay paaka yu bees jënd ay tabarkalla lakkukaay yàpp yu bees lenn lu nañu jënd ko ndax waajal seen xar mi rek yàlla ne ko nangul rek danaa la fay aljanna ngeen xëy ne ko ñoddi ba ci rendikaay bi ne deq rendi ko xar mi mboolem ko yàlla sant nangu na ko waaw yow mi koy rendi nag kon nag am nga taqwa boobu nga xam ne moom bu ñëwoon tey takk ak buum ci sa baat bi da nga nangu ah Ismaayila mi tax de ñu indi tabaski tabarkàlla mbir maa ngi ko nangoo woon kon yàlla nee na kazalika nii tax njàng mii ci am day moo tax saxaraha lakum tàggatal naa leen ko ne leen ko di nag ba xam kan moo ci am taqwa minkum ak ko ci am li tukabbirullaha ngir ngeen bàkk yàlla li tukabbirullaha ngir ngeen bàkk yàlla yéen ñëpp ngeen di ànd allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila noonu ngeen koy déggee tabarakàllah rajo dunia sawtul qalb di leen ko defal iid bu jot noonu la yàlla tabaraka wa taala bëgg bëgg mbedd yeeg kër yeeg jumaa yeeg jàkk yi yàlla nee na foo dem dañoo war di bàkk yàlla ala ma hadakum ci lim leen jubal lii nga xam ne moom leen defal kenn ku nekk rendi sam xar sa kër kenn ku nekk sol sa yu rafet kenn ku nekk am li nga xam ne moom nga bëggoon ci bis ba yàlla mu ne ah kon de su boobaa litu kabbirullah dama bëgg ngeen bàkk yàlla ala ma hadakum wa bashiril muhsinin mu ne nag bégalal ñiy def lu rafet wa bashiri bégalal al muhsinina def kati lu rafet li ñi nga xam ne bu ki jotee bu ñu dee seen xar séddale ko ne yàlla waxe ñu nga xam ne bu tabaski di jub ñu fexe ba ñu amul xar ñu jàppale leen ba ñu am xar muhsinin ñi nga xam ne bu tabaski jotee danañ seet jirim yeeg foqara yeeg masaakin yeeg yépp kenn ku ne ñu fexe ba wutal la xar ñi nga xam ne bu tabaski jotee daañu fexe ba ñi nga xam ne jékkuwuñ ko ñu fexe ba jekkala leen ko wa bashiri bégalal al muhsinina def katul rafet yi lu ñu leen di bégal ah xanaa dugg aljanna tabarkàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo tax kero ba ko malaaka ma laajee lan mooy ihsaan mu ne ko an taabudallaha ka annaka tara da dangay rafetal di jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloog yàlla ndax ku jàkkaarloo woon nag yàlla di ko jaamu di julli muy xool yaakaar naa ne julli ngay julli keroog moom kenn du mas gis julli gu rafetee noonu tabarkal yàlla nee na inna allaha yàlla yudaafiu mooy mooy fekk anil lazina amano ci ñu gëm suratu alxajji aaya fanweer ak juróom-ñett inna allaha yàlla yudaafiu anil lazina amano yàlla maanaam mooy défendre ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla mam cheikh alxaaji malik si radiallahu anhu wa nafaana bi barakaatihi nee na aaya ji bokk na ci aaya ji gën a dalal xelam ci alquran aaya ji inna allaha yudaafiu an alladina amanu nee na moo dindi ak ci moom tiitatul dara jàpp na daal comme su amee iman léegi lu nar a jëm si ci moom ci aw ay jóge ci ayu keneen jóge ci ayu leneen nee na inna allaha yudaafiu an alladina amanu nee na ak beneen aaya ba ne inna allaha la yudiu ajral muhsinin mu ne ñaari aay yi mooy doctrine bi nga xam ne wala boog mooy dundin bi nga xam ne ci diggante ñaari aay yooyu lay taxaw tabarkàlla suñu góor googu maam Cheikh Al Hadj Malick rahmatullahi alayhi wa radi anhu inna allaha yàlla yudaafiu mooy jañ an illazina amanu tabarkàlla Baye Moussa Ka ma ngi koy wax ca wala falam ba teg yudaafiu an illazina amanu yaa saafiu tabarkàlla na yàlla fay leen mag ñooñu nga xam ne lenn lu nekk wax nañ ñu ko te joxe leen ko ci alquran mu di wax jooju nga xam ne maam Moussa Ka wax na ko ak maam Cheikh Al malik inna allaha yàlla laa yuhibbu du bëgg nag kulla xawaanin bépp warkat yàlla bëggul warkat yàlla bëggul warkat mukk mukk mukk kafu kafuur yàlla bëggul suulkatu jëfit yàlla ñaar ñi bëggu ci kenn xawaan ak kafuur xawaan mooy koog loo ko dénk ci ndénkaane dina ko lekk kafuur mooy koo xam ne lépp luñ ko defal ci njëkk dina ko nëbb du fay njëkk mukk mukk mukk du wax kenn jëf ci li ma defal ñaar ñi yàlla nee na bëgg ci kenn yàlla daa bëgg koo xam ne kii ko defalee xéewal mu ne alhamdulilahi sant yàlla ba ñëpp xam ne kii bëgg na da bëgg koo xam ne kii it tabarkàlla loo ko dénk bu delloo jotee mu delloo ko inna allaha la yuhibbu kulla xawaanin kafuur tabarkàlla yàlla mu ne aussi na jox na ñu ndigal li lazina ci ñi nga xam ne yuqaatiluuna ñi ngi xeex ak ñoom bi annahum ci ne ñoom zulimoo dañ leen a tooñ yàlla jox na leen ndigal nañu fayu nag léegi ibnu abbas radiallahu anhu mu ne aaya ji mooy aaya ji njëkk a wàcc ci jihaad al mufassiruna loolu la ñuy wax ñu ne ashaabu rasul ca makka mushriko makka yi dañ leen daan lor ay lor yu metti la fekk benn saaba nga dawal sa fas ko tabarkalla ñii di dóor mu ne bayna madrubin wa masjuux wa mas wa masjuux ñi di dóor ñii di tabarkalla di tooñ di tooñ rek saaba yi waaye yonent bi naa leen isbiru fa inni lam umar bi qitaalihim na ngeen muñ ndax kenn déggalu ko ma ñu xeex ma xeex ak ñoom ndax itam néew doole songub xeex xaru la ñuy muñ rek ba nu ñu gàddaayee ñu gàddaayee ñëw Makka mu ñëw Madina nekk fi ab diir tabaaraka wa daal di leen di wax nag ne Uh, usina li lazina na jox nañ leen ndigalu xeex nag ñu daal di tàmbali nag mi nga xamee ne ñu ngi nekk ci ba baa muy am juróom-ñaar fukki aaya tabarkàlla yàlla mu ne wa inna allaha te yàlla nag moom mi leen digal ngeen xeex ala nasrihim ci dimbali leen la qadir ku ci am kàttan la léegi xeex jot na li ngeen yor mën naa xeex te seen borom dina leen dimbale tabarkàlla saaba yi jóg xeex ca fukki fan yaag juróom-ñaar ca badar tabarkalla yàlla mu ne na ñi nga xam ne uxrijoo dañ leen a génne min diyaarihim ci seeni kër bi xayri xaqin ci lu dul génn dëgg illaa lu dul rek an yaqulu ñu ne rabbuna allahu yàllaay suñu borom loolu daal nee na moom mooy tooñ gi yàllaay suñu borom daal la wax mooy lañ nañu tooñe waaye waaye lii kay xanaa ak liberté dafa amut waaye yàllaay sama borom kenn ku ne war na koo sañ a wax lii la ma yàlla sant ci laay nekkit kenn ku ne sañ na koo wax ndeysaan gis naa kër goo xam ne gi gone gu jigéen gu fa muur saw yaram ñu ne la déedéet na ko dindi ma ne ah waaye waaye xanaa nit lu mu sañe di sañe di war naa mën a boppam ñu ne déedéet doo ko fi defee tabaarkàlla ndax nangam ak nangam yàlla nee na ñii itam seen bàkkaar du dara lu dul an yaqulu rabbuna la yàllaay suñu borom dañ ko waxu dong nag dañu newut yàllaay suñu borom dong dañu ne yàllaay suñu borom lu mu tereeti daañu ko bàyyi lu mu diglee ci daañu ko def loola nag la yàlla wax ne moom mooy tooñ gi te gii wax dëgg yàlla amul solo de wa ma naqamu minhum illa an yuminu billahi al aziz al hamid ca suratu buruji noonu la ko suñu borom waxee tabarkàlla suñu maam ji ma doon wax léegi it muy maam Cheikh Alhaaji Malick yaa ngay dégg mu naan laa ayba fihim xayra anna jumuahum sumul udaati shuhudi kullu idaami wala boo ko na bayit wa dikkee bu fekkee jumma moo di wane ne ay bi yi daal mooy naqari deret ci kaw noon yi rek ñi itam seenu tooñ daal yàlla nee na du dara illa an yaqulu rabbuna allah tabarakallah waaye yàlla nee na na ngeen daal di taxaw digal naa leen ngeen fayu digal naa leen ngeen xeex ndax ñu ngi leen di tooñ walaw laa def ullaahi nag dugoon ko nag yàlla jañ gi muy jañe annaasa nit maanaam nit am doole yàlla indi ku la ëpp doole kee am doole mu indi keneen ku ko ëpp doole mu ne walaw laa def ullaahi naasa bu yàlla doonu doon di jañee nit ñi baadahum lenn ñoom bi baadin ci lenn kon de ba tey sawa sawaamiu danañu daaneel ay sooroor wa biyaun daaneel marché yi wa salawaatun daaneel jàkke yi wa masajidu daaneel jumaa yi yépp yoo xam ne yuskaru fiha ismullahi kathira yàlla nee na bu dugg taw nag taxaw di ko défendre léppay daanu wallahi lawla ma sharaahu llahu min aljiha wa qitaal al la lastawla ahlu shirki ala ahli al-adyan wa ta'attalat ash-sha'air walakin allah ta'ala dafa'a sharrahum bi an amara bi qitalihim yii yàlla tabaraka wa taala bu ko defutoon nee na musibaam xam ngeen ne moos tabarkàlla ni ñu koy waxe suñu góor ga maam borom Tuubaa radiyallaahu anhu cey bu demutoon ci géej ga mu nga yooyu dafa munta ñàkk moo di noonu yàlla fokk mu gis koo xam ne kii su lii du fi amee noonu yàlla taxaw ne ko ah, soppeeb yàlla taxaw ne ko dina fi amee waaye yàlla ne na bu loolu amul rek la hudimat sawaamiu wa biyaun wa salawaatun wa masajidu yuskaru fiha ismullahi katira moo tax Omar di wax ne bu ngeen tegee jaas ji ci suuf rek tabarkalla mel na ngeen meloon bu ngeen bàyyee jihaad tabarkalla mel na ngeen meloon wala yansuranna allahu te it yàlla mu ne waat na ne yàlla dina dimbale man yansuruhu ku ko dimbale wala yansuranna allahu man yansuruhu yàlla dina dimbale képp ku ko dimbale inna allaha yàlla la qawiyun ku am kàttan la aziz ku tedd la tabarkalla yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne im makkannaahum buñ leen jàppanda la lee fil ard suuf si aqaamu salaata ñu taxawal julli wa aatu zakata ñu joxe asaka wa amaru bil maaruf ñu digle njëkk wa nahaw anil munkar ñu tere lu bon walillahi yàlla moo moom aaqibatul umuri mujjantalu mbir yi ñooñu mooy nga xam ne kon ñi ngi dimbale yàlla moo di koo xam ne bu amee jàppandal daal di taxawal julli bu amee jàppandal tëral joxe asaka bu amee jàppandal di déglu lu baax bu amee jàppandal di teral lu bon yàlla ne na ñooñu day walillaahi aqibatul umur mujjantal ga ci seen loxo lay tege mujjantali mbir yépp tabarkàlla ñoom ñoo koy mujj kon suñu borom tabaraka wa taala mi ngi wax ne ci alquranul karim aqaamu salaata wa atu moo tax ibnu abbas mu ne humul muajiruun wal ansaaru wattaabicuuna bi ixsaanin ila yawmi ddin walmaana haulaai allazina yastaxiquuna nasrata allahi hum allazina in jacalna lahum sultaanan fi l ardi wa tamallukan wa isticlaa abidullaha wa xaafisu ala salaati wa adaay zakat daal di digle lu baax daal di ter lu bon yàlla moom ak mujj kon mbokk ñuy déglu ñu ngi leen di jox daje ci guddi bu ñaari waxtu tegee fanweeri minute jëm ca fajar ci seen waxtaan wi ñu tuddee Muntadal Islam tey ñu war leen a indil incha allah an nasqu fi alquran te moo di atteb alquran bu dem ba mu yàgg alquran far ko indi leneen wala sunna far ko indi leneen loolu lañ leen di indil ci